ayta euh, Papa Sow leen di fay leen jaare di leen jaajëfal. Euh, bi nga euh, xam teewaay ñu leen jaajëfal di leen delloo seen bon xam nga àdduna moom lii rek quoi Wally ak Modou Lo jéewoon ci koor gi Wally xooñu gañe mais lii marché marché marché retour bi la quoi mu nekk loo xamante ne nii xam nga Sénégal moo toll fii il faut jeunesse bi divertir wu nekk ci beneen ah, nekk ci leneen quoi te lii dafay dafay dafay dafay dafay dafay dafay doxal dëkk ndax fii su ma juumalee li ma fàttali ki ne laa moo fi mosoon tëgg yàgg na pendant plus de vingt ans li concert amul parcelle kon bu ñu indilee Omar bu ñu indilee fii benn concert indi ko benn Waly Seck non mbégte la suñu quoi dañu ngi xaar Waly Seck. condition la. ah non non non tey ñuy joué dañoo aay trop moo tax ma taxaw ci biti quoi waaw ah, tey ay joueurs ñooy joué quoi. waaw d'accord am na solo euh, ñu wax tamit ci li nga xamante ni mm-hmm. euh, moom la ñu nemmeeku euh, mm-hmm. mbër yi nga xam ne dañoo dem palais. Mm-hmm. seeti ci président Macky Sall ginnaaw bi mu leen recevoir ñu gis nag coow li bari ban jàngat nga ci am. waaw di jaajëfal rek loolu moom dama ci sawar a wax quoi ndax man pour man boo dëkkee ci quartier bu la chef de quartier wooyee si da nga waxuma nag président de la république ku mel ne Macky na dama leen soxla pour ñu waxtaan. demuñu fa woon pour nangam pour nangam dafa ne woon pour joytu ay li nga xamante ne ay manquement lañu te amuñu ku ñu koy jooy ku dul Macky Sall kon bu ñu woowee bu demee dina war a wuyu ku wuyu da nga a wuyu ku a wuyu ndax président Macky Sall ku mu woo wax dëgg yàlla da nga a wuyu ji quoi mooy suñu président bu fi keneen nekkoon tamit bu wootee day bëgg ñun ñu wuyu ko dañ koy wuyu jiwaat waaw nga xam ne topp yi façon coow la ci. ñi nga xamante ne président Macky Sall parce na ku fi nekk nag ku jiitu moom ñu ŋaañ la ku jiitu ñu ne la sa taatu wu rëy beeg sa doq bu nangam bi mais il faut ñu xam ne un président de la République c'est un président de la République Macky Sall day def lu mën a def rek bés bu nguuram jeexee day dem keneen day ñëw mais temps yi dañoo gis ne sénégalais seen ay kàddu seen ay doxalin dafa ñaaw trop ci ay xëccoo yu détails yu ndaw a ñëpp gëm yàlla xam ne euh, gis nga yalla mo koy joxe kum ko rëdd sa jëb yi dang koy don ala kuliyal mais ki fi nek mom kuli sénégalais nga né patriote nga dang ko wara jappalé jàppale parce que keroog mandaam di jeex mo loolu laa gëm quoi. lan gis nga ni euh, moment bii nii la ñu dem. non amul moment gis nga euh, il faut mo wax len ben affaire yow tay ji bu dee am nga borom kër wala dara ya xam wala yàlla mayoon nga wone lor bay mucc lu lay wax yalla tif yalla ba kérok nga yalla di la muccal contrairement bi dem bo ne ba génn dem ba wara a aduna da danaa tuddal yalla ba kérok ngay dog mooy il n'est jamais trop tard pour faire du bien nan bàyyi loolu il faut politiciens yi tamit bàyyi ñun Sénégal ñu xam ne ñun Sénégal la ku ne am nga droit faral ki la neex ku mu neex nga faral opposition ku mu neex nga faral pouvoir mais nan ko def ci yar ak teggin ndax léegi Sénégal kenn xamatul xar kanam ginnaam nit ñi mën nañoo yàq nit ñi mën nañoo saaga ndey nit mën nañu def nangam mais du loolu Sénégal du loolu Sénégal warul doon loolu te it ku jaakaar ne loolu mooy tax nit ki avancé au contraire da nga koy yàqal da ngay yàqal ki nga xamante ne yaa ngi ci ginnaawam di ko saa di ko saagaal wala nga koy defal nangam nangam déedéet waleel yar ak teggin wax sa programme wala lii laa bëgg def bu yàlla tuddee yaay doon président kenn muus da nga koy doon ndax Macky Sall nag maamam bàyyi fi bàyyi fi nguur gi moom ko sénégalais yi ko fal bu demee ba leer ko ni sénégalais yi euh, bëggatuñ ko ñu li ko wala bu yàlla ne nguuram fi lay yem ñu xam ne nguuram fi la keneen ko may moom la yàlla rëdd mu ñëw amul leneen mais kanamu sénégalais nag il faut sénégalais wax ak ñoom trop c'est trop nit ñi il ñu wax ak ñoom loolu mooy dëgg tey déggoon nga fan yee passé ku ne saaga na ndey Papa Sow ku ne def na nangam Papa pour la pour la man man dinaa taxaw benn ministre dinaa ma kaay utal ma nervi nit ñi war na xalaat loolu dimanche boo ñëwoon fii dajal naa fi mille personnes yoo xamante ne nii maa ngi xëy ñun ci la ñuy dox ñun ci baax la ñuy dox ñun kenn war ñu gis ci beneen xar kanam mais nit ñi dañuy diaboliser kuy ut nervi kañ doo taxaw ne fàng daaj da ngay làqatu te lan mooy nervi booy yi bu ñu taal ngeen leen fay léegi kii taal ak kii fay ku gën a doon nervi mais Sénégal yi nan yeewu aussi mais naka ngay déggee papa li nga xamante ni mooy euh, ahlu lamb aussi. waaw ah. critique bu ñu def yàgg nañoo bëgg a gis président. waaw yàgg nañu bëgg président recevoir leen waaye jour bi ñu leen recevoir. ak moment bi ñu leen recevoir. Mhm. dafa mel ni dañoo la première fois Macky Sall recevoir mbër yi président bu fi ñëw da ngaa recevoir mbër yi président bu ma si ñëw recevoir nga mbër yi Macky Sall amul amul kii bu leen war a recevoir bu leen mën a recevoir ah te dañuy recevoir. ndax it ba lamb la yàgg jooy président recevoir leen. waaw yàgg jooy président jàppale leen. waaw comme huit mois président. exact exactement léegi. gis nga nit ñi nag bu nit ñi bu naxante. Mhm. lamb dafa nekkoon amuñu ñu loolu yooyu arène nationale. Mhm. Macky Sall dafa la arène nationale. sponsor nag gis nga sponsor. waaye Seck demul ci demul ci président ñëwul ci président sponsor yi topp na ko c'est parce que lan. Mhm. crédibilité am na moo tax. sponsor yi demoon nañ ci lamb ji. est-ce que promoteur yi fi nekkoon respecté woon nañ règlement ak contrat yi ñu signé ak gars yi. est ce que man na est ce que mbër mi respecté woon na règlement yi est ce que respecté na charte yi il ñu xool loolu boo gisee dafa bëgg a jaay ay produit am boo gisee dafa bëgg a jaay ay produit mais affaire bi du foofu ñu nekk ci nag ñoo xamul mais ñi ci xam na ni amoon ay manquement yoo xamante ne moo war a sponsor yi génne mais président Macky Sall du ci A du ci B léegi lu mu leen bëgg a utal gouvernement universel du force da ngay fayeeku fayeeku mais bokk ci yow mais ku nekk yaa war sa bopp kër ku nekk yaa war a faj sa bopp nañu wax dëgg gars yi leen bëgg a teg ci doq état loolu du yoon ndax parce que nit ku nekk yow yaa war a liggéey sa maximum sa kéem tilaay kattan ba yàlla defal la teraanga defal la sutura ndax changement am ngeen yaakaar am mois yi des ci nguuru Macky Sall comme ni ko sénégalais mais lu xala wax jee bari nag fii moom lu ne fànk kenn du ko daaji li fi Macky Sall def président yëpp jaar nañ ku nekk liggéey nga nag mais li fi Macky Sall def kenn def ko fi mu ci prison yi mu ci mu ci armée bi mu ci leneen mu ci leneen ñun ñëpp gis na li fi Macky Sall def mais bu nguuram jeexee bu dee 2024 lay jeex mais bu jeexee mu dem ak ay mbokkam keneen ñëw amul leneen mais Macky Sall liggéeyul moom war kenn war a ko wax ci réew mi man nangu naa ñu nekk si mhm. man xamal laa mën lan laa mën a ñan laa mën a gisee mën ne mën na ne Macky Sall liggéeyul mhm. mooy kii tukki vingt ans wala dix ans ci ginnaaw ñëw Sénégal ki ki tëj kaso dix ans gis génnoo xamoon si biti mm. ak ki tëdd hôpital wala ki ay bóora bëtam muuru mm. mais nit ñi nan wax li fi am Macky Sall liggéey lu mu war a liggéey leneen ñu waaw euh, yi nga xamante ne gis nañu ay mbër def ko ñaawlu a kontaan ci dem ji mbëri dem wuy ji mais ñooñu ñoo mbër moom suñu ràq la amul luñ koy wax mm. bu gisee ni moom moom bu gisee ni fii la war a bokk bu bëggee bokk mu ñëw bokk bu gisee lii bokk arrangé ko amu leen la suñu lépp la ñun amul li ñuy wax Tapha Mbeur suñu raq la woon démb suñu raq la tey suñu raq lay doon suba mu mën rek mooy wax li mu ko ah, ne am na fi mbër yoo xamante ah. mm-hmm. war a faj mm-hmm. mooy ki mës a ki mës ki mës a défendre équipe nationale yoon sol couleur équipe nationale défendre ko mm-hmm. kooku bu amee jafe-jafe état war na ko mën a couvrir mm-hmm. mais mbëru mel ne Papa Sow mosoo défendre équipe nationale mosoo drapeau Sénégal mm-hmm. feebar na état di la faj jegoo ko fenn da wax loolu neex loolay dëgg tey ku mel ne Doubalès buñ ko jëlee faj ko yoon la Pape Diop Boston ak tant d'autres man nangu naa ko mais comme ah dagg assurance dagg mais mais il faut tamit yéen xam ku fi amul oto am nga moto wala am nga loo assuré assurance bu ñu ci 10 000 francs nga ne damaa bëgg ñu couvrir ma su ma feebaree su ma nangam amul dama assurance de assurance nangam assurance nangam assurance bi la daggal pour pour compétition bi la bu jeex na assurance bi nga xamante ne tey da nga bëgg bés boo feebaree ñu mën laa faj loolu ku ne xam ne leneen la feneen nga koy defee lan nga waxante waaw am na solution mën euh, bi nga xamante ne amal nañ euh, man xam nga li ñu war a jooy. ne eh, jooy ah président de ñun de li ngeen wax daal euh, comme ça euh, service euh, étatique yi nañu nañuy ubbil suñu ay bunt jàppale ñu à loolu amul leneen lu fa nit mën a wax awta leen arène nationale teg nañ ci ay conditions amul leneen man laa gis amul leneen. mais mais ci ñu rek ci a tëjee euh, ko fi social. waaw dafa ñaanal dimbal. waaw euh, keroog gis nañ mu euh, mhm. i jafe-jafe ci làmb président Macky Sall ñëw. tey loolu tey loolu tey ñun la war man sa bokk tamit xam nga bàyyi naa bëre. Mhm. tey jii dañ ut ñun suñu benn association boo xamante ne ñun nañu dagg suñu xaalis pour ñooñu wala ñu dagg suñu xaalis wala ñu ñëw ñu dagg suñu xaalis pour ñun ndax état lay doxee de booy fay IPRES pour woo retraité la mais fayoo IPRES defoo dara ñu ne Père Ali feebar na ay mbokkam ñoo ko war fajal mu faj boppam mais wax dëgg rek affaire nag neexul moo ko gënee bu gëneen gisee affaire yaakaar ne ne commencé dafa tàng wala dara mais boo boo préparé sa retraite après sa day métti. mais fii fa taxawal làmb taxawal fa askan waaw mais Gris waxalee askan bi rek man dew moon man dew moon mais dama ko rafet rafetlu dama ñëw xool li Gris Bordeaux wax seetaanaat ko ma xam ne li li ñëpp waroon wax Gris Bordeaux wax na ko bu Gris Bordeaux wax nag te ko ci félicité loolu laa ci am lu ma ci wax kon seen bopp lañ euh, mooy lan dama bëgg a xam damay dégg am a génne ku mel ni Balla Gaye ku mel ni tamit euh, Balla jël na kaddu Balla Gaye def naa jël ah moon mais def naa jëlul kaddu mais Balla Gaye lan la lan la war a mën a président ànd naa ak président bi ko xam mooy Gris Bordeaux moo koy waxal xëy na ba soo mën audience ak président toogam côte à côte boo xamante ne dina ko président fii am na lii fii manqué na lii fii manqué na lii Balla Gaye bu baax dina a wax ak a wax coow lu mel ni moo ci toppoon ndax gisoo ni tey dañ leen utiliser. waaw mais coo coow lu mel ni topp leen dañ joxoon paas am ay quelques personnes yu am ay ay xëccoo mais bu dul loolu moom dara amul. waaw di jaajëfal rek nga xam ne Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk Sénégal moom ñun ñëpp ñoo ko bokk nañ ko rafetal rek nga xam ne moom lépp Sénégal la rek waa ñaan dal yàlla si yàlla doon di jàmm jaajëf ok